ci soir d'info ñu leen di nuyu bu baax a baax te leen di ziar ci altine bi leen ñaanal semaine jàmm ak suñuy programme ni ñu koy defee saa su nekk rek waxtaanee wàllu actualité dinañ ñëw tey ci li nga xamante ne moo di campagne arachidière bi ba mu dooree ba léegi la nga xamante ne def nañ ci jéego ak it li ci nekk ci ay manquement dinañ ci ñëw waxtaan yi te li nga xam ne moo di suspension exportation des graines d'arachide bi nga xamante ne kilifa yi def nañ ko ngir fexe la ñu wax rek mooy huiliers yi nga xamante ne ñoo ne ci réew mi mën a approvisionné wu waaye it euh, fexe li nga xamante ne semence yi ñuy soxla pour prochaine euh, euh, campagne bi ñu jëm mu mën a disponible loolu yëpp dinañ ko waxtaanee ak njiitu COPEOL ci kanam lay doon bu fi jàllee ñu doon def ko gannaaw 20 bi xibaar it ci wolof ak rédaction bi dinañ ñëw ci kanam it ni ñu koy defee saa su ne jëbal ñu li gën a fës ci actualité pàcc bu njëkk bi ñu jagleel ko kàddu yoo xamante ne dañ koo yëkkati démb encore une fois mu di loo xamante ne am na ñenn ñoo xam ne yéem na leen ndax euh, lañ ko waxee euh, mu di euh, mairie Dakar bi ñu bëgg mu am statut spécial fexe maire ba président de la République di ko tabb ab décret présidentiel kaka njëkkoon a yëkkati na kàddu yooyu mooy docteur en sciences politique Cheikh jàllo gannaaw ba mu ko defee woon ca grand jury ca RFM démb encore une fois Aminata Meng Ndiaye di njiitu au conseil des collectivités territoriales yëkkatiwaat proposition bu ni mel tax nag tey ñuy dalal ki nga xamante ne moo di Bamba Fall teew fii bu ko defee ñu gën a yaatal waxtaan boobu ak yeneen i ponk rek nga xamante ne dina soxal euh, Médina di localité boobu de euh, leneen it euh, loo xamante ne ah ci la bokk ñun nuyu ko rek Papa Djibril Fall maa ngi lay ziar balaa muy jum si tur bi. leneen nga may tudde tey. leneen <laughs> non c'est dama am actualité beneen mais yow loolu yow la woo tax na sax sa Djibril Fall. leneen maa ngi lay fay bu baax di kontaan encore bokk ak yow plateau bi di nuyu Sénégalais ñi seetaan si biir réew mi ak si bitim réew yëpp comme d'habitude ñuy ñaan suñu borom mu def euh, waxtaan bi am njëriñ lool. Mhm. Pape nag sa weekend. sa waa sant yàlla bu baax a baax. c'est que man mënuma la gis chaque fois nga ñëw fii lundi yërëm chaque fois day mel ni da nga jóge si weekend boo xam ne da ngaa sonn weekend bi en général dañ ko def pour repos. Mhm. bu nit repos wulee rek. ma nga nekkoon ci ñun nag yàlla dafa dogal weekend la ñuy xam nga yow muy man daanaka sa programme yëpp da koy déplacer léegi weekend bi ndax xam nga tamit àdduna liggéey bi ci la waaye foog nga dox mbokk. Mhm. foog nga nekk tamit ci soxla nit ñi. te loolu weekend bi moom mooy gën a approprié yenn saa pour nga def ko. weekend bi ma yaakaaroon ne en weekend bi ci loolu laa nekkoon. lundi bi laa dama yaakaaroon duñ la gis. si si mais xam nga. xibaar boobu nga fi bàyyi woon ne doo xëy. xam nga xam nga xam nga rendez-vous moom metti yenn saa yi da ngay da ngay da ngay da ngay ñëw boo bëggee ñëw ñëw boo bëggutu ñëw it di nga ñëw. <laughs> kon baax na alors ñu njëkk kon ci li ma doon waxtaanee sànq rek balaa euh, Bamba Fall di yegsi ci euh, la nga xamante ne euh, Aminata Mbengue Ndiaye wax na ko comme proposition ngir fexe ñu tabb kii di mairie Dakar maire ba te président Macky Sall di ko def ngir fexe mairie bi am statut spécial ndax ñu mën a éviter yenn conflits d'intérêts yi lan nga ciy jàngat. waaw xanaa di di wax rek ne d'abord euh, loo xamante nii la man personnellement bett na ma euh, bett na ma waaye bettuma tamit xam nga avec les politiciens moom il faut s'attendre à tout mais à chaque fois bu ñu yëkkatee idée rek man sama xel ci li muy dem systématiquement dama naan nañu poser question enjeu. Mm. enjeu bi mooy lan mooy lan lañ ciy perte ak lan lañ ciy gagné Sénégal waxuma ay nit nag. waaw lu ci nit ñi di gagné lan la ci Dakar waay di gagné ak lan la ci Dakar waay di perte. et je pense que ne c'est une question extrêmement sérieuse ba nga xamante ni implication yi bari na bari waay boo xamante ni. du Aminata Mbengue Ndiaye moom moo koy entériner nu mu ko neexee du président Macky Sall aussi moom mooy jël décision boobu noonu gisuma opportunité bi te wax dëgg fa yàlla pour man HCCT am nañ yeneen chantier yu gën a yaatu. Mhm. loolu yu gën a am solo nekk fi naan dañuy wax ci statut maire de Dakar pour man statut maire de Dakar euh, nii mu mel nii su fekkee ne mën nañu ko renforcer mën nañ ko gën a dëgëral ba nga xamante ni Dakar dina identifier ay chantier yi nga xamante ni am na ko. jéem ci ànd ak état en tout intelligence parce que suñu gars yi fii aussi pour man souvent dañuy manquer cette intelligence sociale bi nga xamante moom mooy tax ki nga wuuteel bu ngeen dajee ci espace public ngeen war a mën a liggéey pour mm-hmm. njëriñu askan bi souvent dañuy bàyyi xel yeneen détails yoo xamante ni moom moo koy moom mooy indi euh, moom mooy indi problème yi man li ma gëm mooy bi xalifa Sall ñëwee nekk maire de Dakar le 22 mars 2009 su Abdoulaye Wade déglu woon xëy na ñi mu àndal wala ñeneen ñi nga xamante ni ñoo doon questionné moment boobu mm-hmm. le fait que Khalifa Sall jóge ci opposition ñëw yor la capital du Sénégal Wade mënoon na ko fexeel mais Khalifa Sall à un moment donné dégg nañ ko su Wade sax mu ne je revendique proximité avec le président de la République parce que su ma ko deful du ma liggéey Wade aussi di ko dalal di toog di waxtaan ak moom. donc pourquoi souvent du ñu am benn dépassement parce que man li ma gis nii pour man geeru politicienne guerre politicienne rek la amul leneen honnêtement. Mhm. ndax ñu ngi euh, dëkk chaque fois bu ñu remarqué élection locale yi bu génnee. Mhm. Euh, mairie Dakar en tout cas li fi jot a jàll. dañuy mhm. gis ne euh, ñi nekk ci pouvoir bi dañuy perdre mairie bi. mais euh, man li may wax mooy chaque fois euh, lu mel nii nit yi ñoo voté. Mhm. tànn seen maire teg ko fa. Mhm. est-ce que loolu dañ ko war a yëkkati. Mhm. Euh, tegee ko de côté tout simplement parce que dans d'autres villes en Afrique expérimenté nañu model bu mel noonu tax na fii tamit dañ ko war a def léegi que va devenir votu citoyen yi nga xam ne ñoo tànnaloon seen bopp seen maire ñu teg ko fa. xam ah, man au-delà de la mairie de Dakar Aram damay poser souvent benn question boo xamante ni souvent provocation laa ci jublu ma sunu vote lan lay jëriñ en réalité waaw ndaxte bu fekkee ne nit ñi dañu voté ba pare parce que souvent triptyque bi nga xamante ni moom moo gën a sonal électeurs yi mooy séduction au départ élection ensuite hmm. et trahison en ci ci mu mujj bi parce que li nga xamante ni moom ngay wax nit ñi ba ñu fal la souvent bu ñu la falee da ngay def lu wuuteeg li tax ñu fal la et je pense que ne gisuma président de la république ndax du àdduna duñu la jox lépp nga jël lépp. gisuma sañ-sañ bu mu war a am tey ba ne Dakar waaye d'autant plus que man ak moom yooyee moom Fatick la dëkk man Thiadiaye la dëkk nañu def référendum Dakar ñu consulter les Dakarois laaj leen ñoom lan moo leen gënal ci loolu. je pense que c'est très simple. très bien alors ñuy euh, wax ñi seetaan rek ne Bamba Fall mi yegsi na mi ngi ak ñun ci plateau bi maire euh, Médina euh, fekki si nañu monsieur mais maire da nga tardé. embouteillage bi métti rek. <laughs> dalal jàmm ci plateau bi Euh, ñuy euh, rafetlu teewaay bi fii euh, ñuy dellusiwaat rek ci liñ doon waxtaanee léegi ak Pape Djibril Fall mu di proposition boo xamante ne nii docteur Cheikh Diallo ba mu ko defee woon ci ñu utal statut spécial mairie Dakar président di tabb maire ba ku mel ni Aminata Mbengue Ndiaye jiite HCCT waxaat ko encore une fois mu di beneen proposition boo xamante ne dégg nañ ko yow noo gisee lu ni ma ko gisee mooy recul démocratique la mbirum ragal da cee ne ndaxte dañoo jàpp ni mairie Dakar ku ko yor da ngay bëri doole dañuy jàpp ni coono gi ñu dajoon ci xalifa Sall du ñu bàyyi keneen di fi gagné mairie Dakar. Hmm. comme que njort nañ ni président Macky Sall du bokk ci élection bi ñëw dañuy jort ni bu fekkee ni parce que ñoom parti pouvoir pour mu gagné mairie Dakar dafay jafe dafay jafe mënul sax nekk. boo bëggee dégg-dëgg am na maire yu mag yoo xam ni parti au pouvoir génne na ci xelam ndax am nay service de renseignement ñëpp xam nañ li xew. Hmm. donc Dakar seen problème la mos a doon. parce que bul fàtte dama bëgg fàttali nii bi ñuy jàpp xalifa Sall du woon option bu njëkk bi. Mm. option bu njëkk bi mooy ñàkkuloo woon ko Dakar parce que bu Khalifa ñàkkoon Dakar en 2014 kon du ñu yegg ak moom procédure ba koy jàpp. parce que bul fàttali ni 2009 bi ñuy fal man j'étais adjoint maire de Dakar depuis mm. bi ñuy fal dafa amoon list ville de Dakar list boo xam ni dañuy daal di dem raw gàddu la woon bu ko defee ku raw dangay ngay jël proportion la ku dafa am loo ci am. yeneen yi nag yi ci boppam. mairie bu nekk am quota par rapport ak sa population nga fekk si loolu moo amoon fu nekk mais bi ñuy demee léegi ba changé xam ni léegi il faut ñu xalifa Sall bañ a jàll mairie Dakar ñu ñu ñu ñu changé acte acte 2 bi fi amoon indi acte 3 su ma fàttali koo baax ça c'était le 28 décembre 2013 ci la ñu changé ci la ñu indi acte 3 de la décentralisation mooy maanaam li fi am tey. loolu lan la jur tey lu bon la jur duñ ko buñ ko rusoo wax lu bon la jur pour la première fois. mairie Dakar boo fa demee y a des maires de communes qui ne sont pas élus là-bas qui ne sont pas qui ne sont pas là-bas tey Barthélémy Diaz n'est pas conseiller à la ville Madiop n'est pas conseiller à la ville tey boo demee Pala Samb de Poye n'est pas conseiller à la ville te loolu musul am nan nga yow le maire bi nga xam ne li ñu war a waxtaan mutualisation au sommet bu ñu koy waxtaan yow doo toog te am na ñoo xam ne simple conseiller la ñu sa biir kii ñu ngi toog foofu ñoo la ëpp ñoo la sut sax foofu du yoon li ñu ci jublu woon mooy bu ñu jëlee Mimi Touré mu nekk premier ministre yor ay caisse noire yi milliards ni léegi képp koo xam ni gañewoo ci sa majoritaire yaay ñëw ville de Dakar bu bu bu Mimi fexe ba éliminer Khalifa à la base à Grand Yoff Khalifa ne sera plus maire de Dakar yàlla dimbali xalifa Sall mu jàll bi mu jàllee nag ci la ñu wut deuxième ci la ñu jël plan B ni kii nañ ko saax saaxee mu jeex benn yoon. alors bu ñu ñëwaatee ba tey euh, ci ki ko wax parce que euh, su nekkoon responsable APR. ñu ne ah euh, c'est un responsable APR moo ko wax xëy na am na lu ñu namm si ginnaaw mais ki ko wax allié mais benn lañ ñoom ñëpp rek ñoom ñëpp waa APR la ñu benn lañ ñoom ñëpp rek sotti ci def ci la parce que dafa y' a l'APR y' a les anchambres de l'APR y' a des partis yoo xam ne ñoo gën a APR sax waa APR yi ndax waa APR dañu xeex seen ba biir xuloog Macky Sall mais ñoo ñii ñu mën a sëy lañu duñu xuloo duñu xeex te vraiment lu ñu waaj leen ni teg ñu tegoo ko doo mos a dégg ñu fëgg seen dënn balaa président di wax lii ma neex war a neex donc mais weesuwul loolu est-ce que ville de Dakar kese ville cinq te yaakaar naa ni yëpp parce que maa ngi wax ak mu Ndiaye sànq téléphone mais yaakaar naa ni dialogue national bi ñi ci nekk dañu war a bàyyi dem seen yoon. parce que ay ballon de sonde la bu kenn waxul danañ jéem ko appliquer comme ni ñu def ci parrainage bi defoon ko ci jamono ji ñu naan euh, candidats dañoo bari boo demee ci urne bi jëlal 5 ay avis la ñu lancé conseil constitutionnel ba mu dem yaakaar naa ni nañu dellu parce que loolu la dialogue bi wax. waaw nee nañu parce que tey lii seen problème dëggantaan mooy suffrage universel direct bi ñu jëm. Mm-hmm. le maire de Dakar est connu d'avance liste bi gagné. jaatul bu liste bi gagné rek xam nga kat mooy maire day nekk c'est un problème parce que parti au pouvoir dañu am problème am problème parce que bul fàtte ni élection bi mm-hmm. j'avais 111000 voix ñoom ak li ñuy sàcc yëpp ak résultat xaaju ko di nañ 113000 la ñu am te diggante bi li fi xew ci lu ñaaw dafa bari kon yaakaaratuñu gagné Dakar ak gagné commune yi ci yëpp tey lan mooy problème bi recul démocratique de plus de 30 ans la parce que avant Lamine Gueye avant Goux Dakar daa mus fal meeram te bu ñu jël exemple dañuy siir fu ne ci àdduna fa mu gën a bonee gën fa salté gën a ñaaw ñu ne commune sangam sax def na ko pourquoi jël ñu exemple ci France wala ci États-Unis wala ci Londres wala ci feneen parce que tey jii dañoo mënul gagné Ndakaaru te tey dañu bëgg a réformer pour maintenir leurs hommes à la tête des grandes puissances locales te c'est plus possible